jërë ngeen jëf question d'actualité gi ñu gonte woon démb ci assemblée nationale moom la yéenekaay yi xëyate l'observateur nañu premier ministre Amadou Ba moo àndoon démb ak gàngooram di ay ministre ñu demoon janoo jeg député ci assemblée nationale doon fa càmbar tolluwaay réew mi yu bari yu soxal askanu Sénégal ak yu bari yu lënt xelu askan yu gouvernement bi waxtaan ci ak député yi muy ci mbiri processus électoral bi di ci mbirum enseignement gouvernement bi indil leen ci ay tontu ak i leeral terewul réew mi quotidien mi ngi ñuy wax ne démb ci assemblée nationale defante beeg dàgg ya fa amoon moo ko yóbbuloon liggéey ba anki nañu moom kay daanaka ay kurpañ rek a fa manqué woon gaañi dañoo meloon ne nekkoon ci ab ring di waaj a ay débat tàng jër jiita ngaas gu rëy it bi nee nañu gis nañu ko fa diggante ministre intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ak assemblée nationale pëccëxoo la def démb ay gaarawalante ay yuuxonte ak i defante yooyee ñoo fa ëppoon député Birame Souleye Diop Les Échos nee nañu junjaat na fa milliards yi Ba yi Amadou Tampere ba nuppi jàngal ko fa àdduna moom premier ministre Amadou Ba yamu rekk ci loolu ndax témoigné Sud Quotidien ak lii Quotidien ñoo ngi ñuy wax ci seen xëtu njëkk ne premier ministre Amadou Ba dalal na xelu ñi am xel ñaar ak jéexi jaaxa ci ndax élection présidentielle leen tontu moo di woote yi dinañu am ay élection yu jaar ci yoon xaddu dammu tégadu toj ba nga xam ne bu ñu wootee ba ci ëllëg sa askan yu ku ci xëy di mën a dem doxi say soxla Sud Quotidien jàngee ci ne kii di premier ministre bu Sénégal di Amadou Ba mi ngi dalal dënn yi ak xel yi Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna Vox Populi nee ministre intérieur Antoine Diome jox na leen seen wàll ca ndaje ma Antoine Diome nee na nit koy xalaat nit ko ànd ak xelam nu mu mën xelale ay jeunes naan leen porte-parole du bu Sénégal di Abdou Karim di ci dolli ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne man li ma jàpp mooy Ousmane Sonko li mu bëgg mooy ñu jàpp ko ci mbiri politique ngir mu mën a moytu ay daan yu ko yoon di daan ci coow li dox diggam ak Adji Sarr waaye ak ci mën di xew Abdou Karim Fofana nee bi du toog di seetaan kenn di turbale ordre public bi bés bi le jour xëye ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall ak i kàddu yu mu yëkkati démb ci assemblée fekk baax France Ismaïla Madior Fall nee na c'est normal président Macky am na droit consulter ku ko neex ci lu ko neex lu ñeel mbiri maintien de ci réew mi Le Quotidien nee nañu état bu Sénégal ma ca bu baax baax jëwrin gi ñu dénk kaaraangeeg biir réew mi di ministre intérieur Antoine Diome di ñu wax ci xët njëkk journal bi ne yi xew temps yi ci réew mi bu ci force de défense ak sécurité yi taxawul woon ak professionnel kon ñu gis fi musiba ñetti mouvement la voix du peuple gi fi mujjee judd soleil national indil nañu 339 parti yi am ci réew mi yëpp ba wax ñu ne ci jamonoy Macky ci la parti politique yi ëppee ci réew mi ndax téeméeri parti politique ak juróom fukk ak benn di 151 parti politique nañu ci régime Macky mbir meneen mu yokk ci nguuru Macky mooy logement sociaux yi directeur général bu SNHLM di Mamadou Diagne Simbeng moo ko wax ci xët mu njëkk la mandat nee président Macky